est-ce xam nga ni ñu bëri dañuy faral di jaawale sinusite ak li nga xamante ni mooy rhinite allergique sinusite soo ko déggee mooy yàq yi nga xamante ni moo nekk fii ba pare am espace seen biir lëkkaloo ak bakkan bi ñuy communiquer ñu koy awee sinus moo infecté te sinusite moom si wàllu boppam li koy faral di indi mooy bu fekkente ne yow da ngay faral di soj te soj bi virus wala bactérie moo la ko jox ba noppi yàgg si yow lool te fajuloo ko mu dem infecté sa sinusite dal di la jox sinusite léegi sinusite ci wal boppam li ko mën a déclenché aussi meuna nek nekk ne yow dafa am lo allergie léegi loolu nga xamanteni donc allergie nak meuna tax mu déclencher ben réaction inflammatoire sa bir sinusite dal di créer li ñu sinusite mu waral tay ji sa bop di faral di metti metti bo xamanteni da fay jam ba noppi di continuer di metti dara du ko calmer. wala aussi mu créer la li nga xamante ni mooy métit boo xamante ni boo tegee sa baaram sa sinus yi da ngay gis ne dafay métti wala yow sa wàll bopp sa ñenn xit dafay jaune jékki-jékki commencé di vert wala yow nga dem ba sentir ne dara xeeñatu la la nga gis ne tey jii sa gémmiñ boo ko xeeñcoo dafay am xeet ki nga xamante nak nag dafa amee rinite allergique

bu fekkente ne weesuwul benn weer waaye parfois aussi mën a dépasser benn weer dem ba ay 3 mois dans ce cas da ngay dugg si benn phase bu ñu owee sinusite chronique. naka ngay def ba maytu sinusite à chaque fois bu fekkente ne da nga soj teelal faj sa soj bi balaa moo attaqué sa sinus yi daal di koy infecté nga amee sinusite léegi bu fekkente ne aussi yow sa wàllu bopp da ngay faral di tuux bàyyil tuux bi ndax tuux bi aussi dalay jox sinusite mais aussi. yow bu fekkente ne da nga nekk nit koo xamante ni da nga amee allergie fexeel ba xam yow li nga allergie yëpp nga di ko moytu parce que allergie boobu si wàll boobu aussi dafay créer inflammation sinus sinusite ba noppi daal di la jox sinusite. ngay faral di def sport ba pare nga xool ni ngay lekkee parce que lekk bu baax ak sport bu jaar yoon day tax sa système bi nga xamante ni moo lay aar dafay gën a am doole nga xamante ni infection bu ñëw da koy mën a xeex. di la wax ne bu fekkente da ngaa si benn phase boo xamante da nga am sinusite chronique. dans ce demal nga gis ORL di la ñaan encore une fois nga laaj vidéo bi ba noppi nga partage ko au maximum su ko defee ñun ñëpp ñu conscient